محمد الخير مملا تن ميك في جن أملك قيدب من جن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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا العلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين mbokk yi seetaan Sunrise TV ñu ngi leen nuyu bu ngeen mën a nekk di leen wàcce seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm yàlla ak yërmandeem ak xéewalam yàlla na ko borom bi subhaanahu wa dotti si seen jëmm te di sell ñaan borom bi subhaanahu wa taala dafal ñu jàmmi xaduna waaye dafal ñu jàmmi xallaaxira musal ñu si fitnawu xaduna musal ñu si fitnawu xallaaxira baaxal suñuy njaboot jubal leen tabarkeel leen may leen xam gu ànd ak njëriñ xam gu ànd na ko yàlla jox njaboot gi yàlla na yàlla jubbante suñu askan jubal leen teg leen ci yoonu njub yoon wi nga xam ne moom la gërëm moom borom bi subhaanahu wa taala buñ ko wàcceti mukk nag ba kere ñuy dajeeg moom borom bi subhaanahu wa taala mu mel ni mbokk yi tey dellu si xan nañ fii comme ni nga xam ne noonu lañ baaxoo di dikk ak yéen aljuma bu nekk ci seen programme bi nga xam ni moom la ñuy tuddee rihaabul islam muy keppaaru lislaam dellu si xaat nañ beneen yoon comme ni nga xam ne noonu la ñuy baaxoo semaine bu nekk ñu tànn benn topik teg ko ci taabul gi jàngat ko ak mbokk yi fàttali si suñu bopp waaye fàttali ci mbokki jullit ñëpp waaye fàttali ci hit askan wi yëpp ndax rihabul islam programme la boo xam ne dafay dox si lépp loo xam ne dafay jëriñ doomu aadama bi dund ak xadunaam ak xàllaaxiram moo xam xew-xew la bu ne mbet nekk si penc mi wala xew-xew la boo xam ne dafa paase xoon wala xew-xew la boo xam ne dañ koo dëgmaloon waaye danañ góorgóorlu ba fexe li yàlla yàlla cërale si asim dégg ñu jéem ko bokk mbokk yi ngir jàpp ne amaat na dana jëriñ wax dëgg yàlla doomu aadama dundam yépp daf ko war a tënk si lu koy jëriñ moo xam lu xaju si wàllu dundam la walla si wàllu diinaam la kon su ko defee loola tax tey ñu dellu si at beneen yoon fii fas yéene ànd ak yéen ci li nga xam ne moo nekk njàmbatu askan wi nga xam ne tiital na képp koo xam ne yaa ngi xeewoo si réew mi jaaxal na mag ñi jaaxal na jigéen ñi jaaxal na ndaw ñi waaye jaaxal na mboolem koo xam ne yaa ngi xëy di góorgóorlu ngir loo xam pour yóbbul ko sa njaboot pour dimbali si sa askan njàmbal loolu mbokk yi mooy lan mooy ñàkk kaaraange gi nga xam ne mu ci biir réew mi mbokki réew mi jamono yii ñuy dund ñàkk na kaaraange lool kenn ci ñun xelam dalatut moo xam mag la wala muy ndaw ndax càcc gi ci biir dëkk bi dorog bi ci biir dëkk bi ray bi ci biir dëkk bi demet ba finne yi nga xam ne ñu ngi si biir dëkk bi mat mbokk yi suñu góor gu tedd googu muy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu yàlla ñu ko yàlla fayal waxoon ne ne yaakaari askan wu nekk moo di seenu ndaw ndaw ñoo xam ne ñu xam xam-xam la doon ndaw ñoo xam ne ñu jub la ñu doon ndaw ñu ñu nag buñ demee ba yàqu dafa mel ni ñun ci ñu xëllëg xëllëg gu yàqu la te it yaakaar googu nga xam ne moom lañu waroon xam si ndaw ñi buñ demee ba yaakaar googu yàqu si ñu réew day miin ne réew mu na nartu jëm kër lañ nar a xam mbokk yi réew mi li muy dund ci ay jafe-jafe rek dafa doy jamono ji ñu nar see yokku ak xëllëg gu yàqu xëllëg gu lëndëm xëllëg gu ñëpp jaaxle naka la war a mel xëllëg googu du dara lu dul ndaw ñi la ndax ñooy yaakaari réew mi ñooy kuutal réew mi mbokk yi tey dëkk bi kenn la xelam dalatul timis bu xasee jot fit waa ngi rëf ba keroog bët di set moo xam ki xam palaasam marché ba la mu xam ki si bopp koñ bi la mbaa jaaykatab jën bi guddee tànjee la war a këram wala jëndikat yi marchandise bi wara fajaru dem biir kaama wala dem Serekunda wuti ndugg moom ñëw jaay ngir xamee fa la mën a bis ba yóbbul ko njabootam ñu dundee ko ndax jigéen ñi ñu si bëri seen xel dala da ngay génn fajar war a dem liggéey ab jigéen di takk liggéeyam di gëm ñafe di góorgóorlu ngir njabootam ngir borom këram ngir këram ay ndaw dagandu ko si yoon fajar googu agressé ko attaque ko jël xalalam gaañ ko war a ak loxo neen ak ay metti métitam ak ñak xel mu dal ak ñak lum yobul njabotam ñu wara a ak pandek rek bis boobu ak xiif ñëpp toog di setan li si rumi mi muy dem da nak li ñepp ñoo ci wara a rawati na ñi nga xam ne nag ñoom lañ dénk kaaraange rew mi yow mi xam place tay sa xel dalatu ak lu place ba jege-jege ak lu beri beri bëri karange kaaraange mi dalatu ndax waxtu nek rek man lañ koy daj jël sa tera alal bi nga xamne mo nga fa defoon di liggéey ngir yaakaar as teraanga joo mën a terale sa njaboot ngiy dajji place yi si kër yi yi si koñ yi yi marché di toj lampe yi di yàq mu ngi xew ci biir dëkk bi ñëpp ngi toog diko ko ay ndaw yo xamne ne ñeene mukk ngir sonu te jàpp ne nag war nañuy xam teraanga nag doomu aadama lenn rek moo ko mën a joxe mooy liggéey waaye sàcc yi mëntu joxe teraanga waaye yàq lay indi ci askan ñàkk kóolute lay indi ci réew économie bu daanu lay indi ci réew ñàkk xel mu dal lay indi ci biir réew fitna lay indi ci biir réew ak lay indi ci biir réew ak mar lay indi ci biir réew ak tuma ranke ak dellu gannaaw lay indi ci biir réew kon su ko defee sama mbokki ndaw yi maa ngi leen fàttalihaat da leen teraanga doomu aadama liggéey képp moo ko mën a maye ku bëgg xam nangu xoo liggéey da nga si ñàkk te doo mën a doon waaw ku bëgg xam teraanga te nangu xoo liggéey si ñàkk ngay dee waaye doo xam teraanga ndax pexe moo mën a def ba si xamee asim tuut pexe moomu mën mënul laa jox teraanga ndax teranga doomu adama mu ngi commencé ci mu am dignité am personnalité ci bopam am li ragal digganteem ak boromam am li rus digganteem ak jabotam ak yi dëkk ak askanam ay nit bu démé ba boromam rusatul dara kooku dootul jombu daf dara jombu te daf dara nak kooku ñak na li nga xamné ne moy moy dignité ndax kenn dootu ko jox xorma kenn dootu jox kër kon su ko defee ndaw ñi liñ nekkee nañ ko baax xam ne nag nit mënoo dëkk di toroxal ay gor na da nga xam teraanga loolu mëntu nekk dëkk di toroxal ay gor na xam teraanga loolu mëntu nekk ku bëgg xam teraanga da ngay nangoo liggéey te maandu nag doy loolu la sa borom subhanahu wa taala jox fii ku fi liggéey xam ndax dëkk bi liggéey yaa ngi fi ne xas du fi jeex waaye ku fi bëgg nekk na da xam te doo liggéey ci fitna ngay dëkk ak jafe-jafe ak daw ak nëbbatu ak xel mu ñàkk dal ak dund gu xat ak dund gu jafe ak koo mën a doon nag kon su ko mbokki ndaw yi ñu mbokk yi ñu xarit yi ñu sopp yi ñëpp nañ dellu xaat xam ne borom bi subhanahu wa taala ba ñuy bind dañu indi fii daf ñu fi indi ngir ñu liggéey ak jaamu yàlla liggéey ak jaamu yàlla moo tax yàlla indi ñu si kaw suuf mu nekk loo xam ne si la doomu aadama bi di jaaree ba mën a ñoŋal deram mën a ñoŋeel diinaam mën a ñoŋeel askanam mën a ñoŋeel li nga xam ne mooy bakkanam bi liggéey rek moo mën a ñoŋeel yii doomu aadama bi boo xam ne doomu aadama bi nanguwute liggéey waxtu wu nekk mën na ñàkk bakkanam ndax li olof di wax bala nga naan naam nekk fa ndax ku bëgg a dund te nanguwoo liggéey sa dund dana jafe te ku reggut nag bu yàggee nga ràgg te dëkk si ràgg nag bu yàggee nga dee mbaa nga dugg si loo xam ne dañ lay rey kon ndaw ñi nañ nangu liggéey ba Johnson yi ñuy toog di tux rek amulu leen benn njëriñ su fekkee ne yéen yeneen yaakaari réew mi te nangu fu leen jàng nangu leen a liggéey nangu fu jub ëllëg réew moomu du mën a tegu si seeni loxo kon ëllëg réew mi si ñi muy tegu seen loxo mooy ñi nangoo jàng nangoo liggéey nangoo jub bu loolu nañ ko bàyyi xel ñun ñëpp nag ñu jàpp si bu kenn toog ne sama yoon nekkul si li xew si réew mi ndax réew mi métti na lool métti na lool am na yenn koñ sax léegi ñeme ko faa jaar bëccëg téye sa téléphone wala nga téye saag boo ko defee ñu nangu ko boo bëgg a bañ ñu gaañ boo bëgg a forcé ak ñoom ñu faat sa bakkan te ñun ñëpp ñu ngi toog jàkkaarloo la di ko seetaan lii nag ñu toog di seetaan suñ ko baxee nii mu continuer mu jëm kenn xamul mën nañuy dem ba nga xam ne dëkk bi nit dootul ñemee njog fajar sax di julli ji si jumaa loolu nag bu ñu fa xàggee nag muy musiba bu rëy rëy goo xam ne nag taw na si askan wi te li ma leen waxoon si gannaaw ñàkk kaaraangi si dëkk dafay indi économique bu daanu si dëkk ñàkk xel mu dal si dëkk dafay daane économique gi dëkk loolu alquran moo ko wax وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون كن لولو في اندي نياك كارانغ مم بير مم موم الجبدي موم تابالي اك جوبدي يوي ييب دافاي اندي اك نياك موي دك kon su ko defee siñ dëkk bi buñ xoolee mukk bam tàbbi si guuta góog nga xam ne wala ko ndaw ñi jëmale defee ñu bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ngi sàcc wala ñuy rey nit wala ñuy toj bitigi jàmbur yi ñu leen jàpp benn fan ñaari fan ñu génne xal leen loolu dafay encouragé mbon gi si dëkk bi képp kuñ ci jàpp li yoon wax ne nañ la ko teg nañ la ko teg buñ ci am benn compromise il faut ñu jël li nga xam ne mooy mbir mi seriously bañ ci xam benn masla wala benn mbokk naay képp koo xam ne jàpp nañ la ci jubadi nañ la teg ci yoon ba keneen ku dégg loolu noonu xelam dootu daj mukk di def lu mel nii lu waajoo ju defoon ba tax ñu teg ko lañ ko teg waaye suñ bëgg jël réew mi di raay raayal kuñ ci jàpp benn fan ñaari fan ñu gis la ci mbedd mu ngay doxaat daf lu gën a pire li nga xam ne moom nga defoon ba taxoon ñu jàpp la loolu réew mi du mën a dox on réew mi ñàkk na kaaraange liggéeykat yi seen xel dalatut métti na ci gor suy góorgóorlu commencé di taaba taaba si benn di góorgóorlu si ñaar di góorgóorlu ba xëy xam tuuti jël bitigam luyee fay ko xaalis bu bari luyaas luyaas jàllarbeku dafa ay marchandise am bagage am lu toll si five hundred thousand one million si moo xam bagage bu mu mën a doon la nga ñëw te yi suba tel war a bi di ñoo fekk ñu ko daaji yobu sa bagage yeb bokki xol leen coono bi ak nakar gi nga xam waji mom la dara dul te loolu ñun ñepp xam nañ bu ñu ci tek teg suñu bët kon kilifa yëpp nañ ñu dimbalé ci walu karangi réew mi ndax réew pour mu develop réew pour mu jëm ci kanam réew pour mu xam ba neex réew pour mu neex pour mu jaar ci yoon réew pour mu xam eh, eh, comme comme bu dëgër réew pour business bi dox normal faaw réew mu xam sécurité ñiy liggéey seen xel dal soo wàccee tey ci bitig bi boo xàggee sa xel mi dal nga xam ne fi nga ba si bitig bi boo xëyee da nga ko fekkaat dara du si manque lii nag jaaxal na askan bi yépp rawatina ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi ñi xamee bitig wala ñi xamee marchandise bagage boo teg léegi ñu fob boo boo gestoo rek dootu ko gis baxuñ dara dara baxutuñ ko lépp loo xam ne foog nañ ne mën nañ cee xam luñ jëndee benn bag sa taay duñ ko romb yobu lii nag ba mbokk yi ndaw ñu nañ futteeku dem liggéey dëkk bi liggéey ngi fi ne xas du fi jeex waaye ndaw ñu xam jom ñu nangu liggéey ñoom lañ gisut ci réew mi boppi koñ ndaw ñaa ngi fa fee teg seen ataaye baraada bu jeex ñu teggi tegaat beneen suba ngoon jot koo si wax mu mu la Europe koo si wax mu la Europe dëkk bi dafa métti ni nga def faaw dëkk bi métti ndax ku def dara dëkk bi mëntu neex si moom kon nañ fas jom te liggéey xam ne ay ndaw lañ am nañ kàttanu liggéey fattuñ làggee wuñ ah laagu xuñ dara jotuñu suñ cër yaa ngi fi am nañ doole xam nañ kattan ñaata liggéey nekk si réew mi yoo xam ne nit ñi mën nañ ko liggéey ngir xam si teraanga juñ si turoo ak seen i njaboot ñu ba fi loolu yëpp doole ji ñu yàlla jox ak kàttan gi ñu bëgg koo jël di ko wàcc si néew ju doole ko wàcc si askan wi di këf seen xalal di foqandi seen xalal di dajji seen i bitig di dajji seen i kër di yóbbu seen xalal mbokk yi lii dëgg-dëgg ñaaw na lii nag ku si dund boo guddee fa nit sa mujj dana ñaaw boo guddul fa it sa deexin dana ñaaw kon su ko defee nañ ko bàyyi xel am na it lii tax si der ñoŋee liggéey kese moo ñu ko jox kon su defee fi ñu tëjee rek mooy ne ñi nga xam ne ñoo ñu jiite amee kaaraange gi nga xam ne mooy doole nañ góorgóorlu ba fexe sàmmal ñu si yi may lim si nañ ñu sàmmal suñu diine sàmmal ñu suñu bakkan sàmmal ñu suñu xalal sàmmal ñu suñu der sàmmal ñu suñu njaboot lii ñu leen koy ñaan nañ ci góorgóorlu ndax lii xàq la joo xam ne suñ diggante ñoom la dox te ñoom ñoo ñu laaj ne nañ ñu leen nañ leen dénk li nga xam ne mooy suñ kaaraange suñ kaaraange gi nag yéen lañ ko dénk te bu yàlla dañ leen laaj ban taxawaay ngeen defoon si suñ kaaraange dëkk bi na ñàkk na kaaraange ñun ñëpp ko gisandoor waaw li olof de wax na tu nga ne du teew ñuy nataal li fi xew ñëpp yëg nañ du gune du mag du ndaw duhul ñi ñu jiite duhul ñi ñu jiite ñoom ñëpp ñëpp ko yëgandoor kon nag nañ ci jëli step waaw ndax dëkk bi sol jeyaan fi fee step amuñ lañ liggéey nañ leen tasaare ci biir dëkk bi nañ leen tasaare ci marché yi guddi nañ leen tasaare ci place yi nga xam ne xamatut kaaraange guddi gi ñu nekk fa téyel ñu kaaraange gi ndax sol sol ji yi nga xam ne ñooy sol ji réew mi li ñu war na liggéey ECOWAS nga koy liggéey ñoom dañuy xëy di tëdd ñu ngi bëgg a liggéey nañ leen tasaare si dëkk bi ñu liggéey parents yaa fi ne xus du fi jeex andi kara yi ma ngi fi ah police fi nañ leen tasaare ay dëkk bi sëñ bi mënuñoo jël di fay si lemp te mënuñoo xam kaaraange si dëkk bi jamono bii daanaka koñ boo romb yaa ngi gis ñiy fayeku lemp ñu ngi si biir kër yi boo damut fay ñu ñëw sa kër na la fayal bàyyi foos léegi ñun li ñuy fay muy dugg si kay si réew mi lan la ñu si réew mi defal ñun du wut wér gi yaram gu mate du wut njàng mu baax du wut yoon bu baax du wut ndox mu doy du wut courant bu taxaw du wut kaaraange goo xam ne dafa daj ci biir réew lii nag ba keñ léegi lépp loo xam ne mu ngi war ci diggante ak nguur ñun ñu ngi koy def bu lemp jotee ñu fay suñu lemp bu élection jotee ñu dem sànni bu jàngale jotee ñu dem jàngale bu liggéey jotee ñu dem liggéey lépp loo xam ne daal demande la ci réew mi nga xam ne askan wi dañ ko war a dafal réew ñu ñu ngi koy defal réew waaye nag lan la ñu réew mi defal kon su ko defee nañ ñu dimbale ci kaaraange gi dal mën a xam ñi bëgg a liggéey liggéey ñi bëggute liggéey ñi jàpp leen xeew leen tëj leen benn place ñi bëgg liggéey liggéey jàmm xam si réew mi xeli dal dëkk bi xam koom-koom am naataange économie bi correct delloo xat fa mu nekkoon dund gi yomb ah, njàng mi nit ñi seen xeli dal waaye léegi ku xam doom sax bu demee school sa xel mi dalu boo xamee jabar bu demee marché sa xel mi du dal ku guddee si place sa xel du dal ndax looy xelaat mooy bala maa xàgg sama kër est-ce que duñ ma attaque si yoon kon su ko defee loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel ñi ñu jiite nañu nañ ci taxaw ndax seen responsable la te xëllëg borom subhaanahu wa taala dañ leen ko laaj kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati lii seen càmm mag la te yàlla dañ leen laaj na ngeen doon càmmee lii nga xam ne yéen a koy sàmm wa bi hadal ñaan mbokk yépp nga xam ne ñooy seetaan Sunrise TV na leen ngeen wéy di subscribe si télé bii di Sunrise TV waaye di like di ko share موي دولل كير جي دي سون رايت تي في والسلام والسلام عليكم ورحمه الله محمد